Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique. Mbok internet yi ñu ngi leen di nuyoo di leen dalal di leen remercier encore une fois ci top bi ngeen di top limametti.com tay nak suñu premier sujet revue de presse bi ñukay amal ci concert bi nga xamni mom la Ouzin Keita doon amal fële nga xamni mom moy mooy ci samedi bi ñu génn. gis nañ ni concert bi feesul woon maanaam nit ñi ñëwuñu woon wuy si ki nga xam ne moom mooy Ouzin Keita waaye li nga xam ne moom moo gën a jaaxal nit ñi mooy sol bi solin bi nga xam ne Ouzin Keita na ko nit ñi nañ ni solin bi dafa xaw a efféminé maanaam dafa xaw a jigéene ñoom nag ñuy laaj ndax Ouzin Keita dafa amoon benn message boo xam ne moom la doon jàllale ndax ñëpp xam nañ ni populaire popularité boo xam ne war na mën a woote si sees ba feesal ko loolu nag dinañ ko topp ngir indi leen ci ay leeral ci biir limametti point com bu ñu jógee foofu ñu daal di dem fële nga xam ne moom mooy bànn ñi nga xam ne ñoom ñooy population yu nekk foofu nag mel nañ ba futu ndax li nga xam ne moom mooy ndox bi dafa nangu seen kër yi ndox mi nag dafa feesal dell seen kër yi ba nga xam ne sonal na leen ñoom nag li waral loolu nee nañ mooy benn cimetière boo xam ni dañ ko tabax foofu muy tere li nga xam ne moom mooy ndox bi mu jàll ñoom nag ñi nga xam ne ñoom lañ joxoñ baaraamu tuuma mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy mairie bi parce que nee nañ ñoom ñoo fa tabax li nga xam ni moom mooy cimetière bi ki nga xam ne nag moom moo yor kàddu mairie bi tegg na bépp tuuma boo xam ne population bi teg nañ ko te nee nañ dinañ def seen képp kéemtalaay kantaat ngir jëlee fa li nga xam ne moom mooy ndox bi. ñu jàll nag ci problème bi xam ne moom moo xewoon fee ji Pikine Nord maanaam jàppante bi nga xam ne moom moo amoon. Eh, ci diggante agent mairie bii di Mouhamed Sougou ak jaaykat bii di Mortala Ndaw ki nga xam ne moom mooy Mouhamed Sougou nag indi na version des feewam moom nag wedd na lépp li nga xam ne Mortala Ndaw wax na ko moom nee na ki di Mota la dafay ñëw di lal de façon anarchique ci fi nga xam ne moom mooy buntu centre commercial bi moom nag ci lim ñu wax Mota la dafa toog ba 2 du matin ñëw fi nga xam ne mooy buntu centre commercial bi moom nag bi mu ñëwee def ko ni moom amul droit lal ci buntu centre bi parce que foofu propriété privée la loolu nag metti Mota la ndaw ba nga xam ne ki nga xam ne mooy Mouhamed Sougou nee na bi muy ñibbi ci la ko Mota la daal di kar ak motowam di xeex ak moom léegi nag bi ñu xeexee. moom ne na dafa def arts martiaux loolu moo tax mu dóor ko ba daal di koy gaañ bi ñu demee fi nga xam ne moom mooy police policiers yi dañoo téye ki nga xam ne moom mooy Mouhamed Sougou ndax ki nga xam ne mooy Mortala ay ñoom ñoo gënoon a metti blessure Mouhamed moom nag nee na ki di Mortala Ndaw dafa tàmm def di am ay problème ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñi nekk foofu noonu bu événement jotee moom nag mi ngi xaar li nga xam ne moom mooy seen procès bi nga xam ne ñu ngi ko war a amal le 29 août bii di ñëw ngir ki nga xam ne mooy procureur daldi leen àtte ñu xam fi nga xam ne foofu la dëgg bi féetee. ñu jeexalee ko ak li nga xam ne moom moo xew fee ci kër Keur gi nga xam ne benn vigile moo jóge septième étage daal di daanu moom nag bi mu daanoo am na koo xam ne doon na ko jéem a capté ci lu ñu wax ñoom ñaan ñëpp dañoo am ay gaañu gaañu ba ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier jot nañ leen yóbbu fi nga xam ne moom mooy hôpital. vigile bi nag ñu ñuy xamal ni moom bu bëccëg jotee da daan def li nga xam ne mooy jaay da daan jaay ay fruits bu ngoon jotee mu dem def métier bi nga xam ne moom mooy métier vigile. ñu seetlu ni nag bi mooy deuxième cas de bu ñuy gis ci diggante semaine passée ak semaine bii nii ndax gis nañ ñi ki nga xam ne moom mooy Awa dafa jóge woon fi di troisième étage daal di daanu daal di ñàkk bakkanam ñuy ñaan nag genre accident yooyu noonu daal di fi yem ñu bañ ko fee gisati. loolu lañ leen indiloon tey nag ci seen revue de presse maanaam li nga xam ne moom moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew ñu leen di fàttali na ngeen abonné wu ci chaîne youtube limametti.com, point com ba cloche de notification bi nga xam ne moom moo leen di permettre ngeen am information yi foo leen mënti toll. Vous êtes sur limametti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique.